salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julliti mbokki taalibe yi yéen ñi ñuy seetaan ci seen télévision Touba Argentine TV ba tey tey ji ñu dalal am fi gan gu ñuy wax sëriñ Saliou moom sëñ Amsa moom sariñ Abdoul Ahad Mbacké xadimu rasul e, ñëwoon fii Brésil egg e, mbokki taalibe yi e, at mu jot mu fi ñëw di taxawaayu ndigalal kilifaam yu baax yi mu bàyyi Sénégal di son ñaat mbokki yi ci ci sëriñ bi bu baax a baax euh, nekkoon na xel koom maam ju tedd ja sëñ Saalihu yoroon ko euh, nekkoon na njàpp ndal bi mu fi jógee nekkoon na yaakaar naa janatul maxwa euh, xam-xamam ci sëriñ bi lu yaatu la kon nag dañ koy ndégtal kàddu gi mu nuyu leen te ziyaare leen bu baax sëñ Saalihu bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan ak fuñ mën a ne ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax bismillah ah, jërëjëf Mbacke ñoo ngi lay delloo ziyaar baax dañ doon la laaj rek ci bis bu tedd bi ñu génn muy màggal gi ah, dal loo ci ji dollee baaxee rek mbokki taalibe bu baax. waaw ginnaaw loolu ñu ngi ziare waa Argentine képp nga xam ni fekk nañ fi mbokki taalibe yëpp ci njiital seen yàquba seen jawriñ di rafetlu yéen waa Touba Argentine TV seen liggéey bu rafet bi ngeen di def ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ni. Euh, nit yi yàlla yi gën a mag la ko suñ borom mayoon mooy monde boo xam ni virtuel la mooy adduna boo xam ni euh, wàllu yi yàlla yi ñoo mënoon connecté direct maanaam nga nekk fii wax ak ku ne senegal wala nga nekk fii wax ak ku ne eh, Amérique wala Kédougou ak fu mu mën a doon euh, ngeen fexe ba daayira yëmut ci ñeenti koñ yoo xam ni cent personnes wala cinquante personnes ñoo fay daje waaye ngeen fexe ba liggéeyub sëñ Tuubaa bi di tas ci àdduna bépp téeméeri junni nit ñëpp di ko seetaan loolu yàlla may na ko léegi niti ordinaire yi moo tax jumtukaay la boo xam ne des ci jëfandikoo ngir liggéeyal sëñ Tuubaa laaj bi nga laaj day lu am solo màggal gi ku ne xam na ni jàll na ci jàmm ak salaam te li ëppoon solo rek mooy li sëriñ bi waxoon mooy jëfe loolu suñu borom ak sant suñu boroom ak sant le ko yàlla mu mel ni nag ak cant moom la ca ginnaaw mooy ndolleen rek ndax euh, la in shakartum la azidannakum wala in kafartum wa inna azabi la shadid lañ ca war a jàngate nag mooy sopp yonente bi alayhi salaatu salaam ndax sëñ bi euh, coono yeeg lépp ak yim togg woon yëpp lenn moo ko tegoon mooy dafa jihaat ak bakkanam ngir bëgg mu bëgg yonent bi alayhi salaat wasalaam ndax yonent bi dafa waxoon ni euh, jihaad jeex na ci ngànnaay waaye al mujahadatu man jahada nafsahu al mujahid man ku ku jihaad dëgg mooy ku jihaad ak bakkanam moo tax Sëñ Tuubaa ba mu xamee ni wa inna la na maa alayha sa'idan jurusa adduna ak li ci suuf lépp pakk lay defi dara du fi des ci la jël bakkanam jaay ko dal di jihaad wa in sufift wa in suriftumoo ila al jihaadi fa qaddimoo daalan min al aadi fa huwa la amril jihaadul akbaru kama bii ataana anhu xabaru nee na jihaad bi gën rey mooy nga jihaad sa bakkan te mooy bi gën a màgg loolu nag moo indi ñu jël sëriñ bi génne ko bëgg gum bëggoon yonante bi ba jihaad bakkanam ba not ko ba àdduna wuysi ko kon tax na sëriñ bi woote ak cant koo xam ni gannaaw ba la ca jàll mooy bëgg yàlla bëgg yonante bi ak bennoo ak di jëf ngir yàlla ak jël suñuy ruu ak suñuy xol euh, setal ko ci lépp lu dib safaan waaye duy ko lépp loo xam ni lu baax la maanaam taxalli wa taxalli kon loolu lañ war a jàngate ci màggal gi niñ benn woon doon benn di yëkkati suñuy alal mu bañ a yem ci màggal gi dong waaye mu jàll ba euh, bis bi dellusiwaat liñ ci def ci lu baax ci aw yiw yépp rek doon loo xam ni dañ ciy sax di ci wéy di ci tiire ay leçon loolu daal lañ mën a jàngate ci bis bi nga xam ne jàll na kon xam naa loolu lañuy doon wax ci tam boobu alhamdulilah kon mbokki taalibe yi yéen yéen ko déggandoo kon de xanaa dañuy e, lay gën laajaat ci sa maam ju baax ja Cheikhul Khadim e, nga gën ñu cee dolli bu baax rek waaw e, ni ma koy waxee rek nun murit Serigne Touba dañoo moom peeg nu féetu nu fépp comme ni nga xamee ni nit ki yor ab teleem yor ab commandam di walbati saa su ne ci waxtu wu ne nu ko neex la koy walbatoo nun murit noonu lañu war a def li nga ma laaj nag laaj bu la laaj la boo xam ni am na solo waaye ki ki ki nga ko laaj lott na ci tontu ko ndax Sëñ Tuubaa daf noo teele libéré ni mënee su koo xam xaabat maqaami an siwal baaxil xadim nee na ku dul yàlla saa borom sama maqaama ak samay garab ump ump na la waaye nag manees na cee xam loo xam ni mënees na koo jariñu jariñoo ci àddina suñu blaat dafa waxoon ni sëriñ bi du ko nuy xam waaye ku ñuy liggéeyal la ku ñuy topp la bu fekkoon mënees na cee xam dara seex Ibrahima Fall dana ko xam te nee na xamuma ci lu dul la seen ndax ba ñàpp ca garab ga keneen xamu ci lu dul la tal noona kon ku ne la sëñ Tuubaa mooy kii wala nangam yaa ngi nax sa bopp moom wa mooy euh, dafa jëloon léppam maanaam jaayanteeg yàlla jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ko ay pas-pasam jox ko ay waxam jox ko ay jëfam jox ko yëngutoom jox ko dalam léppam du ko sóob ci yonent bi ak bëggam akuk akuk tànnam lépp mu ngi ci diggante tànnuk yonent bi ak bëggu yonent bi moom bëggutoon dara moom la ñuy wax al muridu sadiq Serigne Touba moom la woon mooy ki nga xam ne dafa seey seey ba jeex takk kon nun ñi nga xam ni ñoo di ay taalibeem lenn waruñu koo def lu dul defe noona mu defe woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku bëgg ànd ak Sëñ Tuubaa noonu ngay def mooy dangay ngay ci bopp ci moom sëriñ bi di la waxal di la jëfal nga jox ko say pas-pas jox ko say wax jox ko say yëngutu ak sa dal sa alal moomatoo ko al muridu man laa yuridu say an nee na bu fekkee da ngaa bëgg dara ba noppi eh, nee na boobaa doonatu am murit mooy murit mooy ku nëmmul dara ci boppam kon loolu moo moo mooy mooy ni nga xamee ni noonu lañ war a ànd ak Sëñ Euh, te itam euh, saa su ne dama koy wax am murit akub sëriñ sëñ bay Jaxate daf koy def cee leeral lu baree bari comme nun murit nga xamee ni sëñ bi fàggul nañu lépp niñ koy waxe te manqué woonu dara moo tax mu ne sëriñ baa ngi ñii dox na jox na lay yëf yu doy yootoo lu dul jóg liggéeyal ko tey kon amuñu benn sañ-sañ ci sunu bopp ak su sunu alal ak su sunuy pas-pas lu dul jël sunu lépp jox ko sëñ bi fu mu nu woowee nu wuyu ko ndax ñun ñoo ko wax ndax murit mooy koo xam ne bëggul dara lu dul loolu rek danga génn ci topp te doo ko yëg bëggug sëriñ bi nag nit ki sëb sëriñ boo ko bëggee wala sëñ Abdoulaye nee na loo bëgg mu daal di lay moom aw fas sax boo ko bëggee mu daal lay moom da nga gis koo xam ne sox soxnaam day wëlbatiku ca moom euh, ni euh, si ni ni ni ni ni ni deret ji dawee ci yaramam lu ko waral mooy bëgg gu tar moo tax sëb sëriñ bu ne woon dama bëggu oto balaa ngaa nelaw balaa ngaa am jàmm boo ko amee da koy wuti nun nag sëriñ tubaa yàlla xirtal nañu ci sëriñ tubaa bëggul dara ci àddina da koo gedd ak mu weesuwul yàlla ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme la gën ci ñun ñeenañ neenañ sëriñ tubaa lañ bëgg mooy ñu topp ñu topp lam bëggoon mooy bëgg yàlla bëgg yonente bi bëgg diine lislaam ànd doon benn ni ko daa ñaane yaa rabbi jaalil muridina maahan fii hisnika alxasini wasam lañ te euh, xam naa sax danga ci gën a ñëw ci kanam mooy niñ leen fekke fii ngeen di ko defee rek lu baax la di def ay daayira ak yu demee noonu incha allahu taala kon loolu ñu gàttal ci. kon de xanaa loolu day loo loolu day am na am na solo yéen ko dégg na bokki taalibe kon de xanaa li ni dolli laa laajaat rek mooy euh, comme màggal gi moom yàlla dogal na bis bi njàll na ci jàmm te ñu ngi dëgmal gàmm gi te gàmm gi ku ne xam na. ni sëñ bi moom léppam yonent bi la mhm. waaw moom de xanaa kon lool ci baax mbokk taalibe waaw xam nga gàmmu jëmmi baat bi rek dafa fiir boppam xam nga baatu baatub walada mawlit mi ngi bàyyi ko ci baatub walada walada e, ci tëggin wi ci boo jàng sarfu mafaal lañ ko tëgg mafaal mooy e, liñ ci jublu ci ahlu tasawuf maanaam az zamaan wal maanaam jëm yonente bi waxtu wi mu gane àddina mooy waxtu fajar ci la kimtaan njëkk a feeñ mooy waxtu woo xam ne day firndeel ni nit ñi ngi woon ci lëndam léegi fajar jot na fajar fu mu xare rek ku ne xam na ni ak leer day day daal di ñëw kon euh, ci loolu waaye ba ci ak la ci aju ci ay kimtaan ak ay may ak i xéewal ak ay tegtal yu baree baree bari kon fajar day day day tegtale loolu euh, boo xoolee histoire yi jiitu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, ci wàllu humanité euh, dañ doon dañ doon préparer yonent bi mooy ñi ko fi jiitu woon ci ay ay ay ay yonenti euh, ni ko sëñ baa waxee ni euh, muxaddima la ñoom ay muxaddima lañ alkitab jëmmi téere bi ay ay préface lañ woon jëmmi téere bu livre bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko defee wàllu yi ak gaa yu baax yi ñoom ñoom ñooy ñooy xaatima bi maanaam ñoom ñoo doon mottale moo tax boo gisee ci jës bu mu naan bihal najaatu wal falaax maha sururi wan najaax bihal rabaaxu wa salaax mahan difaahi neqami euh, maanaam àdduna bi dañoo nekkoon ci ay jafe ak ay coona ak ay euh, problème nga ne adduna bi dañ doon tañaxu di dem àdduna bi di sàkku ak mbaax di sàkku ak njub di sàkku ak leer waaye bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee ci la mucc am dégg nga te itam ci la nit ñi xamee ni seen sababu euh, maanaam sabab bi tax yàlla bind leen ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lañ ko xamee ci lañ amee najaat ci lañ amee falaax mooy falaax mooy tex ak àdduna ak alaaxira ba tey indi faahu naqam ci la amee lu njëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo gisee catholique yi seen yonent yi ñoom dañ koy jox daraja comme sunu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye seen yonent yëpp dañ doon pronéser pour yonent bi maanaam dañ doon préparer yonent bi ak di ko bi rasulin yaati min bahdi ya ismuhu ahmad maanaam yonente yàlla injil ci boppam daf doon annoncé dikkub yonente bi alayhi salaatu wasalaam maanaam moom la doon annoncé di indi ay xibaar yu neex di wane ni yonente bi mi ngi waaj a ñëw waaye injil dikkutoon ngir boppam kon euh, ci suñ borom moo ko màggal ci lépp màggal mbiram tànn ko tànnal ko bara ba mu dëkk jëmmi yonente bi fa mu feeñ sax euh, xikma da caa da caa feeñ xam nga yonente bi suñ borom mënoon na koo feeñal Australie mooy fa gën a sori ci àdduna bi su boobaa problème dana am parce que ñun danañ ko yeex a xam yaa ngi dégg te rawatina ci jamono jooju kon yërmande ji yàlla bëgg mu tasaaroo su boobaa duñ ko xam waaw ak ak message bi suñ borom bëgg euh, mu jàll ak leetar bi su boobaa duñ ko feeñ waaye gisoo euh, fi mu ko fim ko feeñale euh, ci ci ci ci ci ci ci makkatal mukarrama nga xam ni biñ demee ba am problème ay jafe-jafe waa Màkka dañoo dëgmal si Afrique nga xam ni mooy centralu àdduna bi nga xam ni Afrique boo fi nekkee mën nga continuer dugg biir Afrique daal di jàll buntu Europe dégg nga muy muy buntu Europe nga xam ni da nga mën a tasaare lislaam naka noonu buntu asi dégg nga nga mën a jël océan Atlantique bi continuer ba jàll Iraq ba jàll Siin gisoo foofu yonante bi feeña loolu lépp ngir mën a tasaare yërmandeem ak resale bi bi mu yeble ba tey ba man ba ni ngay àggee Séville ba ni ngay duggee Espagne loolu lépp euh, maanaam ngir mën a tasaare euh, leetar bi waaye ci suuf lay lay jaar ba ni ngay jàlle Afrique di Sud ba ni ngay jàlle suñu réew mii di Sénégal loolu lépp xekma la ak xereñ bu suñ borom xereñ euh, ba tey bu fekkoon ni dafa feeñ fii Brésil wala Argentine fii ñu nekk nii dangay gis ni balaa balaa ñuy dem ba jamono ji ñuy am ay man ay ay gaal yoo xam ni ci la nit ñi mën a voyager di xam di xuus océan bu boobaa problème problème it dana am moo tax fa mu ko feeñale ba tey xekk ma da feeñ kon day mel ni rek euh, suñ borom euh, daf ko daf ko tànn ci jamono boo xam ni fa la baaxee maanaam ndax bu fekkoon jamonoy aadama la feeñ xam nga kon euh, amuñ woon ay jumtukaay lu mel ni daa xalima ak bind ak ak ni ñuy bindee ak ak moyen yi ñu mën a jël ba utiliser ko ba mën a tasaare message bi ba tey ci jamono jooju du am ba tey bu fekkoon ci jamono yonente yàlla Isaa la ba tey injil gis ngoon wa yuharrifuuna al kalima min ba'di mawaadi'ihi boo xoolee alxuraan nee na e, jëmmi imaanité booba ëggagutoon ci dëgg-dëgg fa mu war a àgg moo tax ñoom dañ ko doon soppi waaw kon jamono Isaa it baaxut jamono bii nga xam ne nag waxtu wi nga xamee ni nit mat na sëkk maanaam e, nit mat na sëkk développement jumtukaay yi ñu mën a jëfandikoo ngir tasaari xam-xam ngir tasaari diine lislaam ah euh, nga xam ni euh, ak dana jumtukaay yi ñu mën a préserver ak mbaax mën a nos xam-xam yépp mat na ci la yonent bi alayhi imanité mat sëkk jamono boobu ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñe waaw waaw teewul nag ña ko jiitu woon ñëpp kenn ku ci nekk liggéey nga liggéey bu am solo mais dañ doon raxas euh, ndab yi bu fekkoon humanité ndab la ñoom dañ ko doon raxas ngir préparer yonente bi am na sax misaal mu gën a gàtt moo xam ne yonente bi moo ko wax daf dafa wax ni ñi ma fi jiite woon dañoo meloon ni euh, dafa dafa am benn bâtiment bu ñuy tabax dynamique bi ku ñëw da nga ci teg benn mool nee na bi ñu demee ba nga xamee ni tabax bi mat na mu des benn mool boo xam ne ku ñëw bu visité tabax bi ba wër ko da nga ah fii kat rafet na lool waaye mool bi fii bu ñu ko sakkoon day baax nee na bi ma agsee laa sakki laa sakki foofu mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaax kon gàmm gi noonu la meloon sëriñ bi nag moom mm, yàgg na koo def ndax diirub lim fi nekk ak sëñ Mamoor Anta Sali ak waajuram daana ko def moom nag mësta def dara ci nekkug waajuram euh, waajuram sëñ Mamoor Anta Sali euh, jëmmi maamam ci boppam waajuru soxna jaar da ko daa def moom lañ naan sëñ Musaa Ka ne soxna sa fóore la da daa sol yére ya di tëralal dongo ya mboolem téere ya moom ci boppam soxna waajuru soxna jaara daf daa gàmm moom da daa jàngale alxuraan jàngal mokkalal na lu ma téeméeri nit alxuraan kon Sëñ Tuubaa dafa nekkoon ci ron keppaar goo xam ni keppaaru diine la waaye diirub li fi waajuram di nekk yëngalu dara waaye euh, bi Maam Mor Anta Sali làqu ba ca déwén sa la la dundal gàmm li de nabi min asasin ci asas la njëkk a taxawal gàmm di ko defee nii fukki kuréel ak ñaar jës bu yëkkatee mm-hmm. mawaahi bu jàng mu mu xaddimaat jàng ab buntu ñu jàng buntu benn buntu ci barsan daal di koy firi boobu nag ñi ko daa def moom sëriñ bi dafa daa ànd ak xaal ànd ak pëstéef jëmmi ñiy jàng wax nañ da daan dem bay bay jug di yëkkati ay gaali xaalis di leen ko xëpp di di bëgg ci sang gii bëgg bëgg gii nga xam ne bëgg na ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom dafa bëggoon yonante bi ba wax nañ ne buñ ko daan am na bis ñu toog ñu toog di waxtaan muy waxtaan ci ba mu yàgg rek loxo yi di tàmbalee ndox comme ni ko yonante bi defe woon nga xam ne bëgg gum bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo waraloon lool kon noonu la daa taxawale gàmm gis ngeen lim ci bind ci ay ci ay ci ay ci ay mujalladaat ci ay téere yu bëree bëri yoo xam ne weeru gàmmu la ko daa def kon gàmm noonu la ko fonke woon kon ñu waajal ko baax a baax te xam ni loolu mu wax ni ku ko def mel nga ni ku fekke badar loolu ci xel rek maanaam jamono la boo xam ni adduna jamono bi ci gën mooy jamono bi nga xamee ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam feeñ na ci dund na ci temps boobu saxaaba yi nañ meloon ak mbaax ga tawféexi yàlla la waaye du seenum ngóor du seenu njàmbaar kon nun ñi nga xam ne fekkewuñ loolu sëriñ bi ni képp koo xam ni guddi gi yonente bi alayhi màgge fe dundal nga ko dundal gi nag mooy lan mooy nga am xaal nga am pëstéef nga am pas-pas yëg ni lii ngay def yonente bi ngay màggal waxuma nag ngi def ko noonu rek ci lu dul pas-pas ak ci lu dul xaal ak yéene waaye nga defe ko pas-pas xaal moo xam da ngay def sa alal moo xam da ngay jàng lépp rek boo ko defee noonee waatal naa la ci yàlla ni li sëriñ bi wax rawatina ñoom dañuy waxe baatin ñoom lu ñu wax noonu la ndax yonent bi moo leen di wax loo lu ñu wax ndigal lañ ci am waaye ci ci ci xel rek boo boo boo boo tegee loolu rek da ngay mën a waat ni yow mën nga ànd ak saxaaba ya ña fekke woon badar te yonent bi nee na ku fekke badar laay doxalu naara mën sax saxaab badra te àjjana ñëpp moom lañ bëgg fa man suxsiya ani naar wa udxila al jannata faqat faaza ku yàlla musal ci sawara tàbbal la àjjana texe nga kon gàmmu noonu lañ koy waajale gisoo Cheikh Saliou Mbacké moom itam daf da bëgg ci bu gàmmu ñëwee ngir roy ci Sëñ Tuubaa nga xam ni wax nañ ni sëñ bi mag ñi lu ñu musaa soxla rek dañuy bàyyi ba gàmmu ñëw ñu di ko ko diis ndax du ca gàntal dara sëñ Saliou noonu la ko fonke woon bu daa woote màggal gi da ko daan lëkkale ak gàmmu gi nee na bañ naa ko ba sama kër yëpp këri gàmmu la waaw kon loolu mooy mooy mooy mooy tënk bi ci gàttal. kon foofu nga daaneel rek. Mm. foofu lañ lay delloowaate kàddu gi euh, mu mel ni. Mm-hmm. indi nga ko ci sa biir yi wax sax. Mm-hmm. Eh, njabootuk sëriñ Touba gépp mm-hmm. mm, ay kéemaan lañ. Euh, lenn rekk doyoon na ci jamono. wala wala benn wala kenn ku mu defar ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall kooku rek doyoon na ci jamono. waaye nag mu mel ni ñun ñu mujj eh, ci tawféex ñu mujj ci sëriñ Saliou. sa maam ju tedd jooju maanaam loolu ciy dollee baaxewaat rek maanaam bu ko defee nu gën cee soññaat suñu bopp waaw. waaw as-Seexu Saalihu Mbàkke radiyallaahu anhu moom dafay ñëwoon e, sóob nit ñi ci beneen dynamique boo xam ni liggéeyal Sëñ Tuubaa la woote ndax fekk na nit ki mënta dem ca tool ya mu fekk ko ci biirum fexe ba liggéeyloo liggéeyam bu rëy boobu nag nga xam ne def na ko ci ñëpp fii da nga fiy gis ndaw loo xam ni mësta jaar ci daara ji waaye danaan la sëriñ bi moo léegi nag loola la ko ci gënoon a ñor mooy dajale ñetti téeméeri nit defar leen tukkulaa jooroor séer séeréer nga fekk séeréer boo xam ne menn maamam mokkul alxuraan mu mokkal alxuraan dégg nga kon moom daf nit moo ko itteeloon jëmmi nit al insaan moo ko itteeloon waaye aw sant ak yooyu itteelu ko woon mooy defar nit kon ci kaw defar googu sax dañ ci profité wax leen ni niñ leen fekke fii ci anam yi noonu rek la mooy ngeen di góorgóorlu ci di liggéeyal Serigne Touba ci daayira yii ndax mooy li nga xam ni moo fi des ci liggéey ndax gisoo fi ay tool yu ñuy santaane gisoo fi it lenn luñ lay woo lu dul bis bii mooy dayra te bis bu set euh, da nga seetaan benn film boo xam ne dana mat 30 minutes wala nga seetaan euh, benn benn épisode boo xam ni wala benn match boo xam ni 90 minutes lay di rek nga jël sa jox ko ko yow sëñ bi semaine bi benn yoon lañ la ci woo. semaine boobee benn yoon bi ñu la ci woo une heure de temps rek lañ la ci soxla nga teew ngir yokk ak mbaax ngir duy ay leer ngir mën a taataan ngir mën a dindi effacer safaan yi nekk ci sa bopp kon loolu war ngaa mën a am yëg-yëgu mën a fekke loole man koo man koo teewe ndax képp koo xam ni dagg nga tembur bi nga xam ni moo lay boole ci daayira bi na la wóor ni eh, jël nga sa bopp jox sëñ bi nosu nga ànd ak mbooloo mi moo tax ñi nga xam ni ñoo ne ci kanam nañ am euh, euh, jëmmi dal gi sëñ bi amoon mooy jiite mbooloo dafa xaw a jafe maanaam nañuy fexe ba di xëcc nit ñi ci xikma waaye bañ leen xëcc ci gëdd ak ak ak di leen noggutu ak napp loolu mooy waral nit ñi di mën a ñëw maanaam nañ leen xirtal ci ci xeemeem loo leen comme ni ko sëñ Bay Jaxate waxe dafa waxoon ni lu waay def sa bopp la ni ma woon ndaxam gaa yi man maa mënee ko murit bu nangoo ma tëglif bu gàntoo ma ba maanaam ku nangoo ñëw ci daayira bi sant ko gërëm ko digal ko waaye bu ñëwutit bul xuloo bul xeex ndax lan moo fi indi boppam te la ikraha fi diin xat tabayyana rusdu minal xay mu ni bu dul see te tuubit mayam moyam gam moyan ma jéggal ko daal koy joxoñ àll ba kon ku ñëwit mu mel ne sax dogguma la mm-hmm. ndax foofu nga dugal say kàddu daa am solo ndax daa mel ni sëñ tubaa moom bi mu ñëwee mhm. euh, nekkewu fi woon maanaam euh, rekk artal nit ñi ci boppam mhm. maanaam euh, dafa ñëw mhm. rekk toog di leen seetaan di yàllay kese bi muy yàllay kese nag nit ñi ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo dem ba xam ne li ñu nekk ay caaxaan la ñu ñëw fekk si ko ci loolu ñu nekk kon léegi comme ci loolu nga wax ci ci ci daayira yi lu am solo li ñëpp a ngi dem mm-hmm. waaye dafa mel ni comme loolu nga wax noonu mm-hmm. maanaam da cee bari ñoo xam ne tey bu fekkee dañuy ñëw ci daayira yi mm-hmm. am na ñoo xam ne maanaam tey euh, comme noonu nga ko waxee maanaam di leen euh, euh, teete ci ak ci ci ak dal mm, da da baax ndax ku mel ni Serigne Saliou moom day mel na ni ñëpp a ko xam Euh, te yaakaar naa bu dee aw àll ki ëpp kenn ëppale ko ko woon mhm. ndax doomi doon doomi sëñ Tuubaa doy na lépp mhm. yilif àdduna doy na lépp mhm. waaye ku musaa ñëw ca dalam googee dina fexe ba jariñ la ca kon jàpp naa ni daayira yi dal googu nga wax euh, loolu war nga ci xuusaat bu baax bu ko defee kan kan ca baar ba kan ne ca baar ba sax am fitu mën a ñëw ci daayira bi ndax loolu mooy mooy mooy jariñu ci sëriñ bi ndax dama mës dégg ci Euh, sëñ saaliwu Touré mu mu baax ma ma ci jànnatu ma euh, doom ci sëriñ Saliou Touré bu Thiès mu wax ni euh, moom ci gémmiñu boppam doom mi Baye mbàkki ture ndax magam magam sëñ Saliou Touré bu Thiès xam naa ni Baye Mbacke Touré magam xam nga ko bu baax mu wax ni am na bés ci nam ma ko nettale ak xam naa diggante bi ni mu yàggee ni am na ko mus ñëw ci sëñ bi di jébbalu mel weneen xeetu melokaan bi mu ñëwee di jégalu bi mu ñëwee di jébalu sëñ bi tamit am neneen lu mu wax moom ba muy dem xam naa bu ma ci juumee nga gàggante ma euh, kooku ni ko foo jëm sëñ bi laaj ñu ko foo jëm mu ni ko euh, damay dem comme ñëw naa di jébalu nungoo maa nungool sama njëbal euh, sëñ bi ni ko bu ëllëgee looy wax sa borom mu ni ko dinaa ko ni fekkoon naa la ci kaw suuf waaw sëñ bi doo ko woowaat eh. kon kon léegi daayira yooyu Eh, xam naa bu fekkee yéen ñi koy déglu dégg ngeen loolu xam ne rek la ca jàpp laa nettali leneen li ci des nag moom ngeen bàyyi mu dem kon daayira yooyu li nga ci mën a baaxe ba euh, kane ca baar ba sax mën a ñëw ci daayira bi ci ak teeyam ci ci ak dalam ak ni mu lay fekke ba mën a jariñu ci sëriñ bi loolu noo loolu noo ciy dollee dolliwaat ñun taalibe yi ak ñi jiite daayira bismillah waaw loolu eh, njiit ci boppam dafa am nu mu war a mel nu mu war a comportement woo loolu mooy makaarimul axlaax yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi dañu ko woon yàlla dañu ko woon walaw kunta fazzan xaliisal bi lan faddu min awlik su fekkoon danga danga bon xol kon nit ñi dañuy tasaaroo te nit ñi kenn moomu leen da ngaa war a yor yërmande sëriñ Saliou ja nga xam ni gone dana ñëw def lu rëy mu wàcc ci mbaaxam ak yërmandeem ba jariñ ko fexe ba jariñ ko dégg ndax nit. mënoo koo jox nit ki loo ko jox ci ak ci ak ci ak naqari deret mën na ko bañ a soxla waaye loo ko jox ci teey akuk dal mën na koo jël mën na ko utiliser bari na nit ñoo xam ne fi ne lay tax ñu bañ a ñuy daje ca mbooloo ya lu leen naqari moo am lu leen naqari maanaam nit a leen ko yóbbee donte sax loolu seen bopp lañ koy def ndax Sëñ Tuubaa daf ne woon sab sang yow bu ko muñ saa donte muñ na la sax muñ muñ lu sab sang ban day wàññi sas ndoole nee na koo xam ne am na la am say nawle boo ko mu ñëwee mu nangu mu nangu sa cant jox say nawle ngay xoole waaw sëñ Tuubaa boo wuy si wut ñeneen a nga fa te loo waroon a def defoo ko mbooloo def ko waaye kala xañ ñàkk saa wu ci teg na la mbir mooy jëwri ni daayira ja nekk ca bopp ba daa war a nooy neex deret jub maandu alal ja ñuy yëkkati di ko joxe ngir sëñ ñu koy dugal fu leer loolu mooy tax nit ñi am pësteef am pas-pas waaye bu ñu dee jël seen alal ko joxe te dugaluñ ko fu leer su boobaa problème day dal di am. moo tax nit ki dafa war a ndax yonent yàlla Moussa ab yonent la na ku ko gën a dëng ci kaw suuf lu ko yàlla wax fa xuulaa lan lay nan moom mii teew dayra mënta dëng-dëng baraw Moussa baraw Firawna yow mii njiitu dayra bi mënoo baax a baax ba gën Moussa ndax ab yonent la kon faaw rek nga def attention xëcc nit ki ci ak teey ak dal akuk mbaax waaye bañ a nax nit ki bañ koo war bañ ab ab sëriñ sax damaa jël lépp waaye ab sëriñ sax wërta dajale nit ñi di leen nax ndax loolu bépp sëriñ bu ko def sëñ Tuubaa nee na booy boo nga bàyyi ko fa ne ko fa ñukku ne yekk ba fa ndax du sëriñ ndax sëriñ day wane yàlla naka noonu yow mi jiite moo xam ab daayira nga jiite la nga war a def mooy war a maandu war a yamale ba tey xam ni daayira bi ka am fukki at ak ka am ak ka ñëw démb képp a ca yam responsable yu ñu koy joxee nañ ca yemale ñëpp waaye dañuy gis ni yu bari day problème yu bari day posé wu ci nun murit yi ci yu demee noonu kii moo fi jëkk kii fi jiitu kii nangam kii mbokkam la kii nangam nit ki daal da koy jox waayam bañ koo jox sa waay loolu daal mooy doxal mbir yi ah, ba tey mooy doxal mbir yi ndax Sëñ Saliou yaa ko yaa nettale xisa bi léegi euh, waajoo ji ñëw ci moom ndax sëriñ bi bu ko neexoon du ni ko demal bu la neexee ndax su boobaa dana ko wàññi dara waaye ci woyefam ak ci mbaaxam ak ci yaatoom ci la fexee ba xëcc ko ba mu dugg si ko ba namputal ko kon nit ñi mënoo leen a ci nax leen mënoo leen a yilif ci wor leen su bilaat day wax ni tappale ñetti at dong la at ma nga ca tàmbalee at ma la ñëpp xamee ak at ma ñëpp bayee nit ñi buñ buñ mar yàlla suñ suñ suñ suñ suñ su amee kuy woote yàlla buñ nee bërit wuy ji danañ ñëw waaye buñ demee ba gisatuñ seen bopp ci mbir mi dañuy dañuy arriéraat te su boobaay yow mi ne ca kanam am nga ci période am nga ci responsable responsabilité bu rëy waaw waaw moo tax kon euh, sëñ bay jaxate ni ma ko waxe woon léegi ak lam nekkoon yàlla rek a tax moo tax mu ni man neexaluma kenn waaw moo tax mu ni bu dikkul te jàpp ak njàmburam ma ñaanal ko aw yiw wudul jeeta ba waaw moo tax euh, mu jàll ba ni sëriñ buy xulookum murit nag nag sëriñ buy xulookum murit du sëriñ murit buy xulookum sëriñ nag jubul ndegam yow mënoo ko jubal farko ba kon lii doxal yoon wi mooy makaarimul axlaax mooy nga dal te teey te yoru jikko yu nooy yu rafet yaatu mën a encaisser mën a euh, njiit noonu lay mel ndax li tax ñu tànn la mooy gënoo fi kon loolu ci gàttal mooy li ma bëggoon a wax ci wàllu googu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñi jiitu nañ bàyyi xel ci loolu xam ni yàlla moo tax ñu jiite leen waaye gënuñ ëpp ñu xam-xam loolu mooy tax mbir yi mën a jaar yoon lu dul loolu rek yëf yi day tas te su boobaa am nañ ci responsabilité bu rëy. loolu wér na sax sëñ Sall boo gisee ñu lay ñu ñu xuus foofu dugg ci waxtaan wi sax euh, daa nekk loo xam ne euh, euh, daay daa daa tas ci àdduna mm-hmm. te ni ma koy waxee sëñ chaque jour maanaam man dama jàpp ne sëñ ba alal li ñëpp la ñëpp ko bokk mm-hmm. kenn moomu ko. léegi nag loolu moo tax euh, kon nag suñ message yi ngeen dégg dangeen di ba euh, ku ko dégg rek da ngay bàyyi xel bu baax ne xam ni dañoo wax rek dañuy dañuy sàkku ay kàddu sëriñ bi rek pour ñu ñëpp ñu mën cee dollee jariñu bu baax a baax a baax euh, kon nag sëñ bi ñu ñu ñu ñu dolli laa laaj daal maanaam ci daal mag ñu baax ñi ak maanaam sëriñ bi daal ak ak mbir yi daal. waaw moom moom li nga wax rek mag ñu baax ñi fañ tegoon seen tànk. mooy fa saxaaba yi tegoon seen tànk ndax sëriñ bi dala dafa teeloon a yee mag ña ni leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine kaanu ilal oxra sawin tilaaxi is waajohu darrata bi tilaaxi bi talaaxi dañoo dëgg dëgmaloon yàlla fase àddina wan ko ginnaaw loolu waraloon na lam yulhimoo xanu xinal iswaax xanu eh, xinal aswaax maanaam adduna eh, leen a jaral bàyyi ndigalul yàlla du marché du lenn fu yàlla Moussa soxlaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam day saxaaba yi dañ daan départ war a jëm cib xare yonent bi ni leen ey Badar ey Xunaynin ey nangam ñu bàyyi fa commerçant ba ñu bàyyi fa commerce ba da ngay gis koo xam ni fekk na booba mu wàcce woon stock bu rëy ci marchandise war koo jaay waaye yonent bi ne ko Badar mu bàyyi fa lépp jaay bakkanam bàyyi fa alal ja nga xam ni day dénkaane balaa moo dem kon ñun ñi nga xam ne ay murit lañ te sëñ Tuubaa lañ yaakaar lépp loo xam ni sëriñ bi soxla na ko war nañ caa taxaw waaye war nañoo njëkkës loolu war nañoo taxaw ci li ñu sëñ bi digal mooy sax ci njub topp ndigal bàyyi tere mënoo def sëñ Tuubaa mënoo defal lu gënal sëñ Tuubaa topp ndigal bàyyi mooy li ko gënal mënoo it euh, mënoo euh, bàyyi it lu gënal sëñ Tuubaa bàyyi li yàlla xaramal am na ku ñëw sëñ Saaliw ne ko Mbàkke dama laa bëgg lool sama fan wii sax mën naa la ko jox addiya mu ne ko loolu nga wax baax na lool waaye mënoo def lu gënal dem sant def li ma la sant mooy toog ca daara ja kon loolu moo jiitu lépp mooy tax bu ngeen nekkee fii li ngeen war a def mooy ngeen bëggante te soppante te àndante te yàlla tax bañ a warante bañ a naafeqante ndax suñ borom noppi na ci lépp yàlla la muy def noppi na lëm defut noppi na koy boo xam ne noppi na ca la mu def ak la mu ba man de fii yàgg naa fi ci réew yi euh, na ci yoo xam ni sax boo ko déggee euh, dangay ngay xaw a rus sax ci wàllu aw aw nekkiin moo xam ñiy jaay la di lal ñuy siisante ci seen biir wala ñuy boolante ci seen biir ngir lan interpersonnel yooyu yëpp nag baaxut ay jikko la yoo xam ni mag ñi meluñ woon noonu mag ña da ngay gis koo xam ni day wenn dogu ndawal dañ ko dañ kenn da koy sedd kenn ñu koy wëlbatiku di ko wëndeel ba mu agsiwaat ci ko ko séddoon ñooñu noonu lañ meloon dégg nga dañ daan labirante te yàlla tax di dimbalante te yàlla tax waaye gis nit takk fi soxna nga dem di ko suufu ak di def yoo xam ni du ak jullit tubaab yi dañoo war a roy ci yéen ay exemple ngeen war a doon sëñ tubaa ngeen war a wane képp koo xam ni yaa ngi fiy def loo xam ne ab safaan la na la wóor ni sëñ nee na bu ëllëgee képp ku may tuddoo di di di ma tuddoo nga def loo xam ne dañ ma ciy xeebe wala ñu ciy xeebe lislaam bu ëllëgee yowmal xiyam balaa ngaa jéggi siraat danañ ko layoo ak mbaax dafa yomb ak mbaax téew yàqalu la dara ci àddina yàqalu la ci sa nit ki mën naa jub mel nam war a mel népp ba noppi suñ borom di ko defal ay xéewal ba noppi muy xéewlu ci xéewal yi yàlla yi waaye jàpp ne rek te àdduna ji ñuy dàq nii maanaam teelaa def li la suñ borom sant boo demee ba jot ko ba tëdd ci sablal danga xam ni lii du la nga doon wut ndax bakkan dara mënu koo suur ala bi zikrillaahi tatma innul xulub tudd yàlla kese kese moo mën a fees ab xol moo mën a suur ab xol gis nañ koo xam ne mu ngi dang dangi ci kër ak i oto bañ ko amee dëkk bi ka fi seetal dëkk bi ka nga jàpp ni moo fi ëpp alal ka fi gën a yor oto bu rafet moo la gën a sonn bu xëyee du nelaw dang-dang lay dëkk moo tax boo tukkee nekk ci àll bi defal la nga man boo waree dem demal Sénégal nemmi ko sa njaboot waaye li ngay dàq doo ko jot mukk bu sëñ bi wootee euh, demal def la nga war a def waaye soobu àdduna rek jàpp ni yaa nga ca yaa nga caw yoon loolu yaa ngi nax sa bopp la ngay dàq doo ko jot mukk ci àddina te ñii sax ñoo la tane moo tax ak lu dul doylu mënulaa may la nga bëgg kon jikko yi nga xam ni sëriñ bi moo moom la indi woon suñ ca delloowaatee rek dañuy am liñ bëgg waaye suñ ko bàyyee rek dañuy torox yonen euh, xaw mun ahazanallahu ni ko Seydina Omar waxe woon nun aw xeet lañ wu ñu yàlla terale ci lislaam saa yu ñu fi bàyyee lislaam gën a torox ci xeet wi mooy ñun mooy ñun murit xeet lañ wu yàlla terale ci Sëñ Tuubaa mooy pas-pas ak xaal ak topp ndigal ak bàyyi tere saa yi ñu ko fi ne ñukk rek ñoo gën a torox ci xeet bi waaw. kon nag sëñ bi kàddu yi am na solo lool xam naa waxtu waa ñu jot sax moom la ma sëñ góor a wax waaye kon budul woon loolu danañ ko gën a yaatal bu baax a baax a baax kon it noo ngi tuub di jégalu bu baax su ngeen gisee ñu xuus duggaale ci biir eh, daayira yi day fekk ni sëñ Tuubaa moom daa jaboote ñun ñëpp te eh, ku nekk ku nekk ngi ci kon nag li sëñ bi doon jottali léegi. di di di ci soññee eh, kon nag dañuy xalaat rek ni moom sëñ bay boole jaboote ñëpp kon nag mm, Mbàkke ñoo ngi lay dool te déglu déglal kàddu gi eh, nga dolliwaat rek soññaat ak eh, defalaat ñu ñaan rek ci baax baaxu sëriñ Tuubaa gi waaw jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di ñaanal mboolem ñi nekk fii ci réew yi yëpp Brésil Argentine ak Latine bi ñi fi nekk ñëpp ak fépp fu ab taalibe nekk di ñu seetaan di ñu déglu tey ñaan yàlla wax ji ñu jariñoo ko ndax ni sëñ bay jaxatee wax wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbali na daanaka sax da ngay tàyyee wax waaye yàlla na saa boroom def rek ñu defal ñu ak dégg ak topp te mboolem ku fi nekk rek yàlla defal la xéewal mboolem jullit bu fi nekk suñ borom defal la xéewal ubbil la ay bunt bala ngay sàkku ci réew mi ak li nga fi bëgg nga amee ko na nga ko bëggee li ngay wut lépp nga am ko ci baaxu sëñ Tuubaa yàlla mën na ko te xéewal yi sëñ Tuubaa nee na yàlla jox na ma àddina ak kilal muraade ni tuq da indi bi isnillah adduna ak àllaaxira lu ne sa borom jox na ma ko te doyuma ko dara kon xewal yooyu yàlla na yaatu ba àgg ci ñëpp ñi fi nekk ñëpp murit xaadir tiijaan laayeen ñëpp rek saa borom defal leen xéewal te yàlla defal na leen tawfeex ju toll ni fii bu ma seetaanee màggal gi dama bëgg ndax murit ak ak tiijaan yi mënoo leen a xàmmee ci biir loolu nag mooy bëggu Sëñ Tuubaa ndax yàlla moo yaatu waaw yàlla moo yaatu Euh, sëñ bi am na lim am te yàqul ca la kaneen am dara kaneen am na lam am te yàqul ca la sëñ bi am dara waaye sëñ bi it day koo xam ni suñ boroom moo ko beral loxo loolu ña koy nangu nangu nañ ko ña fi newoon nangu nañ ko ñi fi ne nangu nañ ko kon nañ gën a farluwaat te gën a góorgóorluwaat ci ànd doon benn tey rafetal lépp rek loolu rek moo am solo ndax kenn ku nekk yàlla defal na la loo xam ni keñaan fanqul muur yàllaay maye kenn ku nekk am la ngay la ngay mën a am ak coxar mënu koo fabbi ci sa morom ndax yàlla noppi na ci lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nag ñoo ngi leen di santaat bu baax te di leen gërëm déglu ngeen kàddu yu am solo yi ku tedd ki wax euh, yàlla na nu yàlla may ak dégg ak topp ak jëfe ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul